Mbao ñoo fas yéene. 80 pour cent 80 pour cent 80 pour cent fii Mbao Macky Sall 80 pour cent lañ koy fii 80 pour cent assuré nañ ko assuré nañ ko 80 pour cent. yaa ngi sa carte électeur Diomaye Faye assuré nañ 80 fii. yaa ngi sa carte électeur. carte électeur ñëpp a yor carte d'identité. ñëpp a yor carte d'identité. wallaahi wallaahi képp ku leen nax na jeunesse bi yoruñu carte électeur dañ leen di nax fii ñëpp a yor carte électeur ñun ñun ñëpp ay mag leen ay ay mag leen majeur yor suñu carte électeur jours yi la ñuy xaar le 22. barke yéen a demee billahi wallahi xoolal dañoo bàyyi suñu lépp dogu ba pare topp lépp mais Sonko rek moo waral lii yàlla xam na ko fi mu ne nii xoolal pare nañ foofu fu fu fu comme fu Sonko defee caravane rek ñu ngi si ginnaawam la 24 la ñuy xaar la 24 ñu leer ak carte gi la 24 huit heures pile bureau yi tijji huit heures pile bureau tijji ngeen foto ji la 24 la ñuy xaar di di waa Fass Mbao accueil bi ñuy am réservé lii de la caravane de la coalition gis seen ah, accueil euh, chaleureux euh, mbooloo mi euh, Diomaye mooy Sonko amul leneen. Macky daa xamul. barki Seexul Xalifa yàlla bu ne tey kaa ñu rey la yow. di teg Sonko président dañ koy def. Sané Mar dëgg bi jàmm lay soxla ak xéewal ak naataange billaay wallaay dee bu tey ñu dee ndax mu génn ñu am jàmm ñu sëriñ dañuy jàng dañuy am métier dañuy am liggéey mënuñu fexe ba defaree boo dee jigéen boo dee jigéen bañ Sonko yàlla na yàlla may ñu mel ni Macky Sall boo dee jigéen bañ Sonko yàlla yàlla may doom ñu mel ni Macky Sall kenn te ku jug ne da ngaa bëgg Macky Sall te ku ne yàlla nga am ni doom ñu mel ne Macky Sall nga ne oh. seen euh, waa Fass Mbao seen euh, waa Fass Mbao ñu ngi noonu actuellement ñu ngi dugg euh, lii de Grand Mbao après Fass Thiaroye après Fora après la commune de Diamaguène Sicap Mbao après Petit Mbao après lii di Fass Mbao gis seen mbooloo mi ñu ngi fi Grand Mbao Grand Mbao ful baa ngi depuis lii euh, di Fass Mbao ba jëm fii si Grand Mbao euh, gis ngeen ambiance bi. Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko. dama ni histoire retiendra. histoire tiendra. est-ce que l'histoire tiendra. waay sa waay. waay war na Serigne Touba lii ku mu doyul dara dootu doy. taal bu yàlla taal sànni sa matt moo gën fay ko. grand sama maam daan na ma wax naan ma tàggum segal saa su wëreeb réew dugg yaa tax barki alxuraan tàggum segal. maanaam saa su wëreeb réew dugg yaa tax. Ousmane Sonko fépp fu alxuraan ndaw ñee tax mu àgg fa. ndaw ñee ko xeexal ndaw ñee rey seen bopp. ndaw ñi tëj seen bopp ndax lii pour mu am ko tey gàcce ngaalaama ndaw ñi barki Serigne Touba du dellu ginnaaw. ñu ngi wéy euh, dugg Grand Mbao gis seen euh, convoi bi mi ngi accéléré gis seen euh, gis man du ma xanaa oto bi daw rek waaye du ma bàyyi. waaw doo kenn amul seen fay. yéen ku ne am na seen fay barki alxuraanu karim bay fen saa yi damay toog suñu kër di gis li oh. seen muy jaajëfal presse bi gis seen combat bi malheureusement mi ngi accéléré fii ci Grand Mbao. Ah. Ah. ñu kase ñu rek campagne am Sonko kase ko am keneen ku ne am na ko waxul dëgg billaahi wallaahi. gaañ man li may yéen. yéen li ngeen di daj kenn daju ko waaw eh eh yéen li ngeen daj woon na Serigne Touba kenn daju ko billaay walaay taalaay baa ngi accéléré fii ci Grand Mbao gannaaw bu ñu génnee Fass ah, baa ngi accéléré. rek wax mooy xëdd xëdd xëdd fàtte sibile ah bu dul Sonko doon keneen élection yi commencé 8h pile 8 h mu jeex Sonko kese ah jërëjëf ñu élection ndax jël nañ ko bilaay yow Sonko kese